moo nekk ci bopp yoonu murit di ñaan suñu borom mu gën koo dëgëral gën a yokk aw fanam ba naal yi nga xam ni moom la tàmbali mu mottali ko ba tàmbali yeneen ñu ngi nuyu it kilifa jataay bi di sëriñ Tàkko Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadal moom xaadimul rasul di nuyu kilifa yi fi yi fi teew yëpp sëriñ Cheikh kàddu yi dafa mel ni daa waroon a mujj ngir tëj jataay bi ndax matale na sëkk li ñu war a dénkaane lépp war koo leeral lépp indi nga ko ci kàddu yu gàtt te jotale yàlla na la suñu borom fay waaye nag loolu dafay dal xel ndax ñi topp Serigne Touba bëgg ko lañu ko toppe waaye bëgg bu àndeek xam ci lay borom di mën a jariñoo te loolu ngay def mooy tax ba nit ñi ànd bëggi mën a ànd ak mën a ànd ak xam ale sëriñ gi daan wax ni bëgg suukar deesul nattable bëgg gi mu bëgg suukar ndax moo tax ñu tuddee ko waaye des na ko fekk ci am soow mu lab te la ko ko la ko waral mooy bëgg gu àndut ak xam kon yàlla ñu yàlla defal bëgg gu ànd ak xam ñu bëggoon nag tey jii bëggoon a waxtaane tomb boo xam ni mooy doon sunub yóbbal ba ñuy dellu siwaat tomb bi moo di muñ suñ boroom dafa wax ni wa tawaasaw bi sabr yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni as-sabru nisful iman nee na jàppante leen ci muñ yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni muñ bu doon bu diine doon ñaar benn ba mooy muñ muñ nag li tax ñu jël ko bëgg cee wax tuuti mooy xew-xewi jamono waaye dinañ ci si ab ab jurit nag bu ñu ne ko war ngaa muñ mën naa yomb ci moom ndax li mu jàpp ba war a muñ muy ay exemple ak i misaal ak i masala dafa bari lool tàmbaleel ci yonent bi sallallahu alayhi wa moo gën ñëpp li gën a baax ci àdduna gën a baax ci àllaaxira moom la suñu borom tegoon ci ay loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund na ñeen fukki at yoo xam ni ah bu dee xéewali àdduna yi ñuy am de amu ca woon lu am solo amu ca woon luñ koy roye lu tax ñu koy tudd suñ borom jox ko li gën ci li ñuy joxe muy di jokkali digganteem ak jaam yi muy an nubuwa bi mu ko ko joxee def na fukki at ak nangam ci biiri mbokkam coono bu nekk daj na ko fa ñàkk gu nekk it fekk na ko fa waaye dara ci loolu taxul mu soppi misaal mi ma ciy joxe mooy wax nañ ko ni bu fekkee ni dem nañ ba jaaxle ci li muy woote ñuy wax ko ni bu fekkee ni li nga bëgg mooy ak nguur mënees na la koo jox nga bàyyi li ngay wax su fekkee ni li ngay woote alal a tax waxal loo soxla ci sunuy alal ñu jox la ko nga ëppale ñu waaye nga gis ni sallallahu alayhi wa sallam li ñuy wax ak yàkkamti dalu ko mu ànd ak muñ ànd ak boroomam ba jóge foofu muñ a ko jëlee màkka ci biiri mbokkam yóbbu ko ci barab yu sore sore sore ndax màkka ak medina ku fa dem xam nga ne diggante bu sori la ku ko dugg oto sax xam nga ni sori na waxantuma laag nag waxtu woowu nga xam ne dañ ko daan dox wala ñu jëlee jëli fas kon dund yonente bi sallallahu alayhi lépp mën na nekk misaal ci muñ dundu saxaaba yi yëpp it mën na nekk misaal ci muñ Seydina Ali yéen ñëpp xam ngeen ni bokk na ci ñi gënoon ñi gën a jege yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko yar moo def ci moom li nekk ci moom lépp yéen ñëpp xam ngeen ni bi ko yonent bi sallallahu alayhi di may doomam amul sax lu mu joxe lu mu joxe ak can te boobu baayam moo jiite jullit ñi te fu mu demoon laaj fa tàllal loxoom ñu jox ko la la mu soxla waaye yonent bi sallallahu alayhi wa moo nekkoon misaalam jàngal ko ak muñ ba mu nekk ci boppam ba loolu mënu koo def mukk kon moom misaal la rek waaye Cheikhuna al Xadim mi nga xam ni moo ñu dajale ci tànt bi dundam gépp muñ la sëriñ bi wax na ko léegi ni sëriñ bi bi muy génn fii wax nañ ko ni ku dëkk bii nga nekk muy Tuubaa ak li ko wër aaral nan la ko mbooloo ngi fi ñoo xam ni loo soxla ñu defal la ko loo bëgg ñu defal la ko ab aalim la xaafis la lépp loo xam ni nit daan na ko fonke moroomam boobu Sëriñ Tuubaa amoon na ko laa moo génn foofu waaye la mu jug lu lu jëriñ doomu aadama yépp la woon waaye nag la ko ca war a fekk dafa leçon bii ñuy wax muy muñ moom rekk moo waroon a nekk li nekk ci kanamam ak dëgër nekk koo xam ni sa waxi démb ak sa waxi tey lu mu jar daf la koy jaral kon dëkk yi ñuy wax yépp nag daarul muxti ndindi fii ñuy wax tindoodi daarul alim al xabir daarul mannaan daarul minan tuubaa gii ñuy wax cheikh abdul ahad nettali nañu ni bu yàggul dara nit daan na fi sebet am ndox ay dong wër ko bëgg bëgg naan ci ndox mi borom ni leen dama il faut ngeen bàyyil ma ci dara kon xam ngeen ni metti na woon na lool waaye barab yooyu li muy metti metti ñoom ñi ñëpp kenn ci ñoom taxul woon nga dengi dengi sa pas-pas sa am-am sa man-man lépp lépp nga joxoon ko sa borom kon nag dafa doy sëkk ñu misaal leen ñooñu ngir ñu xam ni lu jamono jaxasoo jaxasoo ab julit war naa làmboo làmbaay yi nga xam ni mooy muñ démb dinaa joxe misaal ci alxaaji sëriñ Gueye ah gàmm gi nga xam ni moom lañ mujj fekkee fii ak moom booba alal ji maanaam li nga xam ni moom lañ ci war a def xol bi ko joxe mu ngi fi loola it mu ngi fi te fas yéene ko fas yéene na ko cee def te def na ko ci sax nag waaye ba waxtu timis baas bi ñu war a dugg ngir war cee def nit ñi ñu war a jàng ba waxtu timis baas bi nëppul waxtu timis fekk na ko ci àll bi ngir taxawal bis bii utim ndox fekk na ko timis te at ma ca topp la gàmmu ko gën a neex la ko gën a jàpp kon nit li nga am li li nekk sa kanam muy muy pas-pas na wér te nga dox jëm ci waaye lan la ko suñu borom fayee mooy man mii bi may gàmmu si baas bi ma fekk baas bi ngeen gis nii bi may gàmmu si man fi laa ko fekk te talaata laa ñëw ah, altine laa ñëw ki ko fi indi benn dong taxawul fii ni dama maa koy jàppale moo fi indi bâche bi baas ko bu soobee yàlla bu noppee mooy dellu si waat bâche bu mel baas bu mel ni bâche bu mel ni nekk ci biir kër yi moom sax bëggoon na ko te mënu koo am waaye yi nga suñu borom ni muy def ni muy def ab jaam muy li lay jox du du sotti lépp ci sa kanam xéewal yi ñuy xéewaloo Sëriñ Tuubaa ko liggéey te moom ci boppam xéewal yi ñuy wax la ci ëpp fekk ko fi moom amu ci woon soxla waaye xéewal yooyu fekk ko fi woon yi nekk ndindi sëriñ tàkkoo xéewal yi nekk fay sëriñ bi wax xéewal yi nekk fii ci kër ngan na bi fi bi fi barab bi kër nganna jafe woon naa ñëw lool bi fi bi bi mu neexee ñëw ak bi fi sëriñ bi jógee sorewul kon loolu nag muy bind boo xam ni képp kuy am murit buñ la koy jàngal deesul sori war nga koo mën a dégg leçon bi nag mu ngi jëm ci ñan dëgg-dëgg mu ngi jëm ci ndaw yi ndax dañoo gis ci jamono bi ñu génn mbooloo mu baree bare bis bu set ñu ni téeméeri nit ak nangam faatu nañ ci géej gi lu tax ñu ni dañuy wuti koomu àdduna ndax kat sunuy waajur sunuy soxla bëgg bari nañ ci luñ bëgg a faj te mënuñu koo faj kon lii muy xaru moo ñu moo ñu ko war a moo ñu faj moo ñu war a fajal sunu soxla waa ma ni Cheikh Mouhamadul Fadal xaarimul Moustapha mooy waajuram Cheikh Mouhamadul Fadal ak Cheikh Mouhamadul Moustapha nettali nettali naa leen fii ni leen toog nañu sëriñ bi liggéeyaloon na leen ay fan yu gudd gudd jàppatuma nu mu toll ba ñu génnee ngir neexal leen sëriñ bi dencut ci wërsëgu àdduna lu ta lu ñu mën a xéewloo lu dul cere ju wow joo xam ne dañ caa defum ndox teg ko ca naaj wa ba mu sekki ngir ñu mën koo jëfandikoo Cheikh Mamadou Fadal moomu ak njabootam ku ci bëgg am mbasin doo ko jënd dañ koy jënd indil la ko waaw loolu nag di waaye diggante boobu diggante bu sori la diggante boobu loola loola mu lu ñuy doon def ak bi lii di am résultat bi lu sore sori la li sëriñ Gueye doon ji fii ñu bari taxaw ci ci digg dëkk bii ni du fi amee mu ne dina fi am lu ne mu daj ko ci loola tey jii la résultat bi doo doogay tàmbalee am te damay wax ne day doo koy tàmbalee am dara tàmbaleegul sëriñ mi ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool man du ma dugg ci kii ndax yooyu da indi jafe-jafe waaye euh, doomu aadama suñu borom dafa wax ni xuliqal insaan min ajal dañoo bind doomu aadama ci yàkkamti mu waxaat ni wa kaana al insaanu ajula doomu aadama dafa yàkkamti waaye nañu teeylu te ni teg li war a ñëw yonent bi sallallahu alayhi wax na ni doomu bi bi mu amee ñeent ñett ñeent fukk ci biirum ndeyam bokk na ci lañ ko bindal te dootul far mooy wërsëgam kon ñi koy wuti te das sa géej ga mooy wërsëg bi ñu amoon dafa jeex tàkk ñu bëgg a bokk ci milliardaires yi te waruñ cee bokk bu ñu toogoon dund waaye li ñu war a am nag junni lay ñëw ñaari téeméer ñetti téeméer ba mu jeex waaye est-ce que dañu fee indi fii ci àdduna lan moo tax ñu indi ñu fi est-ce que dañoo indi ci àdduna ngir ngir ñu dajale koomi àdduna laaj boobu nag suñ borom a ñuy tontu dafa wax ni dama leen a bind yéen ak jinne yi ngir ngeen jaamu ma bu ñu ko fàtte li tax suñ borom binduñu mooy ñu jaamu ko moo tax sëriñ bi bi muy defal boppam identité dafa wax ni abdullahi wa xadimu rasul kon lii rek moo war a nekk suñu identité dëgg la nag ñi nga xam ni ñoo jiite réew mi war nañoo wax ak ñoom ndax bu ndaw ñi fëkkee seeni bagage kenn ku nekk jug daw ngir bëgg a xaru yi ndax yaakaar tas na kon ñoom ñi nga xam ne ñoo war a dugal yaakaar ci biir doomu aadama yi war nañoo wax ak ñoom yaakaar a tas kon ñi nga xam ne ñoo yor loolu nañu góor góorlu ba gone yi amaat confiance ci seenum réew réew du développé mukk te du ndaw ja ñoo ko développé ndaw nag il faut que mu toog il faut que ñu yaakaarloo ndax kenn xëyul ta li ngay tabax loo boo yoroon million yor fukki million yu tabaxu teraas loo yàkkamti yàkkamti di nga muñ weer ak nangam ndax il faut que ñu def fondation gas tegu tabax teg raax loo yàkkamti yàkkamti il faut nga muñ kon nii la àdduna nii la àdduna bindoo kon ndaw li nga xam ne moo war a tabax àdduna dañu ko dañoo war a xëccaat ko indiwaat ko ci li ñuy wax espoir espoir nag nekkul ci suñu loxo dëgg la képp kuy kilifa war ngaa wax ak ñoom waaye dëgg-dëgg nag ñi nga xam ne ñoom lañ dénk alal réew mi war nañoo góor góorgóorluwaat ba ndaw ñi am confiance ci seenum réew. yàlla na suñu borom defal yàgg fi ndax li ñu war a ànd li ñu war a liggéey yaa ko war a jiite fii kenn soxlawu fi dara loolu moo fi am nag sëriñ bi kii soxla kenn soxlawu fi dara waaw li ñu bëgg rek mooy barab bi jàpp nga nekk ci kanam ñu nekk ci sa loolu rekk loolu rekk la na ko ñëpp jàpp na ko ñëpp jàpp bëgg ñun ñun ñëpp nag mag ak ndaw taal bëgg nekk taalibe Serigne Touba dong mooy sunu yitte yeneen ñi ci dis yëpp luñ ci am rek mën nañ koo jox bala koo xam nag ñu gàmm bés ba ngoon poos boo fi làmb doo fekk dara te kenn ku ci nokk kenn ku ci nekk ci ñun foo toog jotaay ba nga toog bi ngay ñëw la ngay gàmmoo yaa ko dugal sa poos lépp lu ñu la jox it fas yéene nga koo joxewaat kàdduy sant yi sëriñ bi ñu ngi lay sant waaye di sant sëriñ Abdoulaye te wéral cër yi ak sunu waajur yi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ci turu sëriñ bi di e, sant it ñi nga xam ni ñoom lañ bokkal dëkk bi ñëpp muy sëriñ Moustapha mi nga xam ni mooy magi sëriñ xaadim di euh, xalifab sëriñ moor mu ngi ci biir euh, nekk ak ñun ànd ak ñun barab bi ànd ak sëriñ bi barab bi kon moom it ñoo ñoo bokk lépp xëy na kàddu cant yi dañuy tudd tëram rek waaye euh, moom mbir mi ñoo ko bokk bu ko defee di sant it soxna ami mu yóbbaale njaboot gépp ndax kenn ku ci nekk sa taxawaay rafet na ci Serigne Cheikh ak mi nga xam ni ñëwut jote nañ waaye mm, terewul euh, xolom ak lépp mu ngi mu ngi ci barab bi mook sëñ Omar ñoo doon ànd sëñ Omar dégg ngeen kàddu yi mat na sëkk te jot xam na ni ñoo bokk mbir mi kon xëy na kàddu cant yi jóge ci ñun di jëm ci moom xëy na kàddu yi jottali la rek waaye euh, moom ñoo bokk lépp kon waaw kon bu ñu jógee ci ñi nga xam ni ñooy bokk yi di sant yi kilifa yi fi teew yëpp xëy na mënee suta jaar ci tur ñëpp ndax ni jataay bi melte xaw a yàgg tuuti waaye euh, ñu ngi sant ñëpp rek képp koo xam ni euh, Pape bi muy présenté jox ni joxe na saw tur euh, ñu ngi lay sant ca cant ca tur woowu ci noonu mu ko tuddee waaye it képp koo xam ni saw tur ñëwul nga xam ni rek fatt moo ko waral waaye ñëpp sëriñ bi mu ngi leen di mu ngi leen di sant bu baax a baax boole na ci sëriñ Abo moom sëriñ Sidi xëy na Pape da ko fàtte woon sànq sëriñ Bàcci Diop Kalsaan yàgg na fee ñëw ci barab bi sëriñ Jibril Diagne bu kàdd euh, moom waaw sëriñ Jibril Diagne bu kàdd nga xam ni euh, sëriñ laay ñëpp xamoon nañ ko ci barab bi ren ñëw na fi ngir feddaliwaat tànk kóllëre yooyu ñu ngi koy sant bu baax a baax euh, sëriñ Cheikh Mokhtar Diop ak waa commune rurale bi sëriñ Xaadim moom sëriñ Cheikh Kajoor euh, xëy na ku ma gis rek ku ma tuddul te euh, kii nga xam ngeen xam ni rek mbir mee demee noonu te it mënee suta jaar ci turu ñëpp waaye nag kenn ku nekk xam ni euh, sëriñ baa ngi lay sant bu baax a baax bépp kilifa goo xam ne bàyyi nga sa yitte bépp dong boo xam ne bàyyi nga sa yitte ñëw ci barab bi mu ngi lay ameel ak kàddu yu cant yoo xam mu ngi koy jaarale ci man te lott naa ci joxe ko ñoom waxtu nekk dañ leen di beral seenu cant ndax bu nit ñi mënee yàgg ci barab bi eh, yaakaar naa seen taxawaay la loolu nag yaakaar naa soxna am mi mën na cee jiitu waaye mm, day jëmmal rek waaye ñoom ñëpp dañ ciy dugg muy sunuy soxna waaye di it ñi nga xam ni mooy taalibe yi nga xam dañoo bàyyi seen yitte ñii jóge kokki ñii jóge màkkasaar ñii jóge kër ma xaali ñii jóge fu nekk ñoom ñëpp rek kenn ku ci nekk eh, ñëw ak ñu ñu jóge ci bërëb yu sore sori duggi oto ñëw waroon a toog dooni gan summeeku bokk ci ñi nga xam ne dañuy defaral gan ñi ñooñu ñëpp kàddu cant yi nga xam ni ma waroon a jóge ci sëriñ bi te mu matale ma war koo jàllale bu matul rek maa ngi koy jéggalu waaye na ngeen xam ni kàddu yi mat sëkk kon yàlla ñu suñu borom defal tawféex ba ñu gën a nekk jaami yàlla ñoo xam ni ngërëmul suñu borom rek la ñu wut ak ngërëmul sëriñ Tuubaa aqulu qawli hada wa astaghfirullah ñu jox kàddu yi sëriñ tàkko dugal ci sunu yitte yëpp rek kenn ku nekk la nga soxla na ko tàllal dugal ko ci waaye nag nañ ci boole sunu borom tin ñu ba sunu jëmm ji mu yàggal ko sunu kanam jëwriñ ji loo wax borom gu ba gaaw koo def na yu bokk waa axlu diwaan ya seen mbooloo ma xam nañu la